réew mi dañu ni réewum jullit la ñuy puukare woo quatre-vingt-quinze pour cent musulman quatre-vingt-quinze pour cent yooyu boo ci dindi woon ñi xam wama naqasa wa zaada ñu tuuti la ñuy doon jàng nañ tubaab nekk nañu ingénieur nekk nañu xawma lan ak lan ñu ngi toppatoo ñu ngi dugg ñu ngi génn ñu lee ngi bitim réew international ñu lee ngi ci réew mi di borom diplôme xale yu tuuti yi léegi kenn nangootul wax wolof ñëpp tubaab la ñuy làkk loolu moo di xeeb sa bop te sa bopp nag du yow yàlla yàlla la bind nii nii nga mel kon danga nga war a nangu ni la yàlla def boo ñëwee ci jigéen ñi li yàlla bañ ñoom dafa mel ne dañu wax yàlla dama ni dafa mel na xasuma leen nag waaye loo am ñëpp teg ci seen bët maanaa yow yàlla daf la bind sa karaw gàtt nga wuti beneen karaw ni yàlla yow ba nga may defal karaw xëy na pénurie karaw dafa amoon bu mënuloo ma defal karaw gu gudd nga ñëw defal ma lii ba noppi wëlbatiku naan euh, euh, naan rëbb naa ku yokk ku lonkal waaw waaw wala mustawsila su ko defee nag yàlla ni moom ak yonentam ak ci malaakaam képp ku yokk yàlla rëbb na la rëbb na la ak ñooñu yàlla def na itam euh, karaw yi fuñ fu mu jóge ñii ñu dee lañu dee foo xam ni duñu maye dara duñu bàyyi dara ku dee rek boo sa karaw guddee ñu wat ko jaay te itam feebar dafa bari feebar dafa bare te karaw sore ci eh, deru nit nekk ci biiram boo ko watee rek mu génnaat kon mu ngi ci biir a yàlla rek a xam fu mu nekk waaye boo tojoon bopp bi karaw du génn loolu jigéen ñaa ngi koy def mu bokk ci yàlla buggul jigéen ñi lii def boppu neen ak boppu neen conséquences yi ci am fii góor ñi sax dañ leen daan tére boppu neen mm-hmm. surtout waxtu timis ah loolu jigéen ñaa ngi koy def benn musiba bu mag am nag mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi bi mu ñëwee jigéen ñi di photo wu di joxe adresse yàlla bind la ah ci gën jaarafeti bind gën jaarafeti bind yàlla bind la ci nga defar nga transformer tout su ëllëgee mu jural la jàngoro ju kenn mënu la faj loolu jigéen ñaa ngi koy def réseaux sociaux yi lu nekk ngi ciy xew commentaires yi saaga yaa ngi ci ñu ngi apprécier lii di xas lii di saaga lale kenn xamatul foo jëm góor ñi ñu nga ci la yàlla bañ lu fi yàgg loo xam ni juróon na fi coow bu yàggul mësu fi jóg nag yàgg na fi li naqadi yàlla nag ku yebu naqarlu ko ku ko naqarluwul ca nga bokk complice te li naqadi yàlla kenn mënu ko wutal am argument boo ko défendre amul amul amul amul ci yàlla ni bugguma lii nga indi argument ni lii baax na amul mu mel na état bi ci seen bopp ñoo war a contrôler état bi li fi warul am mënu fi ñàkk bañ a am foog mu am fi waaye kenn du ko manifester bi ci des mooy sàngara si xale yi di naan di ko jënd ci école yi mbuus cent franc di ko naan loolu war nañ ci wax loolu nag mbirum état beneen bi ci des moo di boîte de nuit yi bare na fi mbon gi bare na fi liberté bi bare na laisser-aller bi bare na jigéen ñi simmeeku seen yaramu ne yi nekk ci biti façon bu ne ñu di ko def fecc mi bare way yi bare doo xam doo xam doo xam looy def télévision yi bare télévision bu nekk am nga droit lu la neex génne loolu kenn mënu ci dara waaye nag boo demee ba di mag di responsable wara a mën a am télévision war nga mën ni télévision bi day dinaa seet luy jëriñ réew mi ma def ko ci waaye du ci génne lu bon duma ci génne lu bon xëy na télévision yombul jafe na parce que foog nga am sponsor foog nga am ku la jàppale nga sog a mën a dem waaye ni mën naa ko di def yu rëy rëy am nga alal télévision bi lu ne di ci jaar lu waay bëgg a wax wax ko te la muy wax dara du ci dëgg lu waay bëgg wax wax ko te dara rafetu ca mu mujj nekk moyen boo xam ni moom la ñu communiquer loo bëgg a wax nit ci nga koy jaar wax ko loo bëgg a gaaral nit ci nga koy jaar gaaral ko parce que léegi jëlal benn émission diine ki koy présenté moom rek ay amee kàddu animateurs yi duñ ci am kàddu ñu di leen jël nag boroom xam-xam yooyu di leen jël di leen taaj di leen wax loo wax yoo xam ni euh, yàlla àndu ci yonente àndu ci te xam nga am na yoo xam ne soo ko dee wax walla nga di ko def jotewoo ko ñi koy dégg dégg rek lañ ci am ki ngay dajal ëllëg moom nga amal affaire su ko defee ñaaw-ñaaw yooyu yëpp ñu war ko bàyyi lu ñaaw nag sudee am nit ku nekk am nga war nga man ni lii ñaaw na bokkuma ci moogën gën du man kenn lii ñaaw na ñaaw na te lu ñaaw nag yonent bi sallallahu alayhi dafa am lu mu ci wax ku gis lu bon lu ne fexeel ba mu dañ soo ko mënul jéebaane ko ñëpp wax ca soo ko mënul na ñëpp di ñaan ba yàlla jëlee ko fa xew-xew yi fii am ñuy manifester di di marche di def leneen kenn ku ci nekk sa compte nga ci moom ngay régler sa compte ba nga cee régler kii dafay régler compte politique am kii régler compte mbañeelam ak eenam kii réglé compte économique am dem ci boutique ba toj ko jël fa la mu fa jël yóbbu këram trois mois doo jëndi dara lépp nga am nga ko moo tax keroog bi manifestation yi amee fii ki ñuy wax ni dafa téléphoné ci Tiwaawan benn xaritam xama mbokkam ni ko ni ko dégg naa Auchan bi ñu ngi koy toj buñ ko tojee nag mu ci jëlal meew waay